nga ñun ay sénégalais lañu et que euh, suñu réew dafa am euh, loi donc ñun dañuy tënku ci république euh, ay ndaw lañu nag projet lañu am d'abord ñi ngi ñaan ci kattanu yàlla yàlla mi nga xamante ni lépp lu am moom la ñi ngi koy ñaan ci kattanam vraiment feebar boobu nga xam ne mi ngi lëmbe àdduna bi suñu borom musul ñu ci ñun waa Sénégal ak bépp mbooloo mu jullit ak képp koo xamante ni rek tey le monde entier parce que euh, musiba bu dalee du du yam li naan ay du yam ci bopp borom donc ñi ngi ñaan ci yàlla vraiment mu nekk loo xam ne lu lu lu ñuy gaaw a trouver vaccin bi la boobu ba léegi gis na ni que kilifa diine yi kilifa aada yi ñi ngi joxe ay ñaan et nag Sénégal loolu yàgg fii e je pense que ni tey ñun ay ndaw lañu donc ak sunu monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr génn na démb def déclaration bu am solo ne pas de panique ànd leen ak dal ñu nit ñi ngi nekk ci sunu liggéey di def di continuer suñu promotion parce que on a dépensé beaucoup d'argent waaye nag ñun dañoo tënku ci république fi may wax ak yéen nii point de presse bi may wax nii su ma ci pare woon seconde qui suit ñu ne bépp manifestation boo xamante ni day dajale plus de temps de personnes interdire nañ ko on va annuler jusqu'à nouvel ordre parce que ñun ay sénégalais lañu ay doomu aadama lañu waaye nag dafa am kilifa gu doon wax naan kilifa dafa am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba max parce que li ñuy def pour bégal sénégalais lañ lépp loo xamante ni nag maanaam day andi maanaam loo xamante ni sénégalais yi baaxul ci ñoom loolu duñ ko def mais ñu ngi nekk ci suñu logique gu liggéey suñu logique gu communication mais bu ndigal jibee que ni dañu war a arrêter rek dañu war a annuler dañuy annuler jusqu'à nouvel ordre incha